booy ça va. Sower. baal yooyu ñoo far mais c'est que xam nga léegi appareil solaire koy doxal quoi. booy baal solaire bi. yow sama gang quoi mais da ngay décorer kon yoo xam nga yow na ma def. keroog booy taxawal tey moom dal naa keroog yaa aayoon waaye tey maa aaye. Oh, xoolal defal ma dara. non non wuy ma wuy yow sama gaay nga d'accord te loolu àddina bépp sedd nañ ko xoolal gannaaw ñàkk naa bee bii maa ko ñaan may ma ko rek. loolu asalaamaaleykum booy tey maa ko ñaan. yaay pom maay new. yaay lépp d'accord may nga ma ko. wuy ma su ma def nag ma defoon nag dégg wuy ma comme dab waali. d'accord ah. waali booy su ma def nag ma defoon waay. waale ah. waaw rek. Boy, suma def na ma defoon waaye. maa lay déglu xool dama rek naa ko jël. waaw. aimer c'est beau mais aimer c'est lui qui aime c'est mieux beau. xale bu jigéen. boo tàkkoon ba jeex sa doom laay jël def ko si ànd de ko curaa yow. gis nga askan wi wuuri fépp am ndam. waaye jamaa tegg tur bi. te yow yaay jëm. booy xoolal booy on a plus de temps à perdre xoolal Wally ñu lay xaar nee na mu ngi studio nañ dem. gannaaw da ngaa xam Wally. non si Wally. sama booy la. mais nee mu gis lay xaar nañ. d' accord mais booy du ma gis kii di wax ak ay waaye d' accord na ma waaree. xaar yow xanaa xamoo man waali rek laay wër. gis nga kii. Euh, bépp son bu Wally Seck mos a way donc moom moo ko produit kon pour mu boole ak Wally du doon dara. waaye loolu dina ma neex. waaye lu ma ko bëgg sama biir xol. merci sama xarit la sama xarit la. sa xarit la sama jëkkër moom rek lay béggee. lan sama jëkkër. nga am jëkkër. naa jëkkër waaw moom. yow Mbaye yow nga ni jàng yi. nu mujj kii da lay boole waaye t'inquiète pas. Eh, yow nga ni jàng yi nu mujj. xale bi xam nga béy ko waaye. sama jëkkër moom lii lay béggee yow xanaa dégg nga kii li mu wax nee na dafa am jëkkër. wuy ma soxna si déggal nga ko dégg nga waaye dégg déggal nga ci tut tut tut tut bu colleeti naa ko man moom waaye xam naa dinaa ko bàyyi rek man moom waaye xam naa dinaa ko bàyyi rek non dam nay waare waaye damaa xam waare ah damaa xam waare boobu dafa am jëkkër mais rek xaw ma yow sérieux woo quoi yow sérieux woo quoi Dona Yara.